asalaamaaleykum am chaîne internet solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di am mbégte euh, comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen dégtal lépp loo xam ne rek moo gën a fës euh, ci wàllum actualité ba tax na ni ki tey dañ koy daal di door rek ak euh, kàddu ya nga xam ni Mame Makhtar Gueye daal dina ko yëkkati jëmale ko ci ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane sunk moom nag vice président de l'ONG islamique Jamra Mame Makhtar Gueye daal daal di taxaw temm rek ngir jàkkaarloo ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ca tontu bi nga xam ne rek tontu na ko Jean-Luc euh, Mélenchon ndax moom euh, moom Mamata Gueye Jamra euh, ma ngay xamle que ne kat dañoo daal di man scandaliser la ñu daal di def te li ni kenn def ko kudul avocat wi nga xam ne ñoom ñooy homosexuel maanaam daal avocat wu borom ñaari tur yi moom rek moo daal di ñu provoqué foofu noonu ca université Cheikh Anta Diop de Dakar fa nga xam ne rek mën naa ne dañ fay daal di sàkku xam-xam ba tax na rek moom Jean-Luc Mélenchon foofu rek la ñu daal provoqué ba tax na sax moom Mamata Gueye Jamra ma ngay posé ab euh, question di xamle que ni kat euh, kañ rek la ñuy daal di euh, toléré li nga xam ne rek moom mooy mbirum boroom ñaari tur yi fii ci réewum Sénégal te li ni mel nag kenn toléré ko li ni mel nekk ab laaj boo xam ni moom ma daal di koy posé et que nee na Ousmane Sonko daf leen daal di bett lool lool lool wala sax bett na ñëpp te tamit xamle na Ousmane Sonko que ne kat bu dee mënoo tenir li nga xam ne rek moom mooy say promesse maanaam daal dig yi nga xam ne defoon na leen ko. jàppal ne que ne kat dinañ la xeex maanaam daal dinañ xeex ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko comme niñ ko yàgg di defee ci euh, ñeneen ñi li ni mel vice président euh, de l'ONG islamique Jamra daal di xamle ba tax na sax moom Mame Matar Gueye ak ña nga xam ne rek ñoom la daal di àndal ca foofu noonu ca Jamra daal di nañuy xamle que ne kat ab tournée euh, nationale dinañ ko daal di amal ngir rek alerter ñi nga xam ne rek ñoom ñooy suñu kilifa diine yi maanaam daal ngir wax leen. la nga xam ne rek eh, jamono ji moom moo fi dal di nekk rawatina rek ci mbirum eh, borom ñaari tur yi te tamit xam ne nekk ni kat eh, discours maanaam kaddu ya nga xam ne rek Jean-Luc Mélenchon yëkkati woon na ko jëmale ko ci mbirum borom ñaari tur yi ñoom nag dinañ ko traduire en arabe ak li nga xam ne rek moom mooy wolof daal di koy jébbal rek ñi nga xam ñoom ñooy suñu kilifa yi ak ña nga xam ne rek war nañu déglu ngir ñu mën a xam rek nekk Jean-Luc Mélenchon dafa daal di ñëw. ci réewum Sénégal ngir rek euh, may doole ñi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, borom ñaari euh, tour yi te nee nag semaine bi dinañu tàmbali li nga xam ne rek moom mooy ab tournée nationale ngir rek daal di dem ci kilifa diine ngir wax ak ñoom maanaam daal alerter leen li nga xam ni rek moom moo fi daal di am ca boobulee jamono ci la ki nga xam ne rek moom moo yor wàllum communication Pastef foofu noonu ca Touba di wusturu Babacar Sarr bëgg Bamba moom nag daal dina yor tontu ki nga xam ne rek moom mooy Mame Matar Gueye ci attaque yi nga xam ne euh, mi ngi koy def ci seen leader bi lii di Ousmane euh, Sonko ndax moom euh, Baba moom Babacar Sarr ma ngay xamle que ni kat Mame Matar Gueye mer moo ko jàpp ba mu daal di jaawale li nga xam ne rek moom mooy yàkkamti maanaam daal ak li nga xam ne rek moom mooy gaawantu loolu indi daal loolu di indi li nga xam ne rek moom mooy ab daanu ba mu daal di ñàkk li nga xam ne rek moom mooy crédibilité ba tax na moom sax ma ngay laaj. ki nga xam mooy Mamatar Gueye ne ko ana lan moo waral rek nga daal di euh, jafandiku ci euh, mot boobile di euh, toléré te daal di ignoré maanaam daal di bàyyi mot bile di casus belli bi nga xam ne Ousmane Sonko daal na koy prononcé ba tax na ma ngi koy laajaat ne ko ce que déglu nga bu baax a baax discours bi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko jëmale ko eh, ci mbirum eh, borom ñaari eh, tur yi ma ngay nag xamal ma Makhtar Gueye que ne kat toléré signifié wul benn yoon que ne da nga daal di nangu waaye toléré itamit signifié wul benn yoon que ne kat d'accord rek ñu daal di koy légaliser te ku ne xam ne ne maanaam mbirum borom ñaari tur yi am na rôle bu am solo boo xam ne Ousmane Sonko bëgg na ko ci jouer te yàgg na ko jouer rawatina ba mu nekkee ci li nga xam mooy opposition bi ndax ma ngi koy xamal que ne kat. wàllum criminalisation wu euh, l'homosexualité euh, la nga xam ne rek moom mooy foofu na ci assemblée euh, fa la war a jaar ndax ab procédure la boo xam ne moom la ñu war a def ba tax na li ni mel sax ma koy xamal que ne kat soo déggee ñuy wax mbirum toléré mooy que amul benn sanction criminelle boo xam ne rek mën nañ koo teg kenn koo xam ne waram maanaam kenn koo xam ne rek boroom ñaari tur nga ndax kenn euh, kenn criminalisé wu ko amul lenn loo xam ne rek benn dan boo xam ne war nañ ko mën a teg ci sa euh, ndodd li nu mel nag la daal di xamal Mame Matar ba xamal ko sax ne ko euh, Ousmane Sonko taxawaay bi nga xam ne rek amoon na ko ak parti Pastef euh, taxawaay bi nga xam ne amoon nañ ko ci mbirum borom ñaari tur yi euh, changé wul te du mës a te ñoom duñu mës a nangu rek li nga xam ne rek moom mooy borom ñaari tur yi ke Ousmane Sonko discours bi mu tenir dafa nekk ab discours boo xam discours bu dëgër këcc la te benn homme politique boo xam ne rek mës na yëkkati kaddu comme kaddu Ousmane Sonko yëkkati jëmale ko ci mbirum borom ñaari tur li ni mel nag la ki nga xam ne rek moom yor wàllum communication wu euh, Pastef Touba daal di euh, tontu ki nga xam ne rek moom mooy Mame Matar Gueye euh, Jamra bu fa daal di jóge dañuy dem ca opposition bi nga xam ne opposition bu dëgër bi nga xam ne rek opposition bu yes bi bëgg na ko tëral mu nekk nag ab mbir moo xam ne Mansour Mamour Cissé moom moo ko daal di xamle borom jant bi moo xamle que ne kat jamono jii ni am na ab opposition bu dëgër këc boo xam ne rek jamono ji ñu ngi koy daal di waajal rek pour pour euh, jàkkaarloog ak euh, ki nga xam ne rek moom mooy. jomaa euh, Diomaye ba tax na la le président Diomaye ba tax na moom mi nga xam ne rek ancien collaborateur ki nga xam mooy maître Abdoulaye Wade la moo daal di xamle que ni kat jamono ji ab waxtaan bu am solo rek mi ngi daal di am waaye tamit retrouvaille aussi mi ngi am ñii ñi ngi waxtaan ngir rek ñu daal di mën a boole waaye tamit ñeen ña ngay dem ngir rek seete ñeneen ngir waxtaan ngir ñu mën a boole li nga xam ni moom mooy Euh, doole ngir rek jàkkaarloog régime bi nga xam ne euh, moom moo fi daal di euh, nekk ba ñi nga xam ne sax ñoom ñooy les sociaux démocrates ak les sociaux libéraux ña ngay waxtaan euh, ci seen euh, biir euh, Decroix yi tamit ma nga ca biir rek ci la nga xam ne moom mooy waxtaan bi et que li mel rek dina daal di wane ab opposition bu forte boo xam ne dinañ ko daal di am waaye nag moom ma nga xam que ni ab opposition bu responsable ab opposition bu forte waaye tam bu crédible rek jamono ji moom la ñuy daal di xaar et moom la ñu daal di bëgg ñoom ñi leen ngir rek jàkkaarloog dio bi nga xam ne moom moo fi daal di nekk maanaam Ousmane Sonko ak ki nga xam rek moom mooy fay buñ fa daldi jugee dañuy dem ci vérité yi nga xam ne rek Guy Marius Sagna daal dina koy euh, xamal ñi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, régime bu euh, yees bi moom gii nag nekk membre coalition Yewwi Askan Wi waaye tamit jege loolu pouvoir exécutif bi moom nag daal dinay xamle que ne jamono ci lenn rek la ñu war a def mooy que dem ci ay élection législative te dafa nekk ay mbir moo xam ne ab obligation la dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu am solo la parce que changement la ñu woote rupture la ñu daal di woote te rupture boobu li Pastef woote ak la coalition Diomaye président woote euh, daal di koy battre li nga xam ne sama mooy campagne mën nañu ko def ak député yi nga xam ne euh, ci coalition Benno Bokk Yaakaar la ñu daal di euh, nekk maanaam daal mesure yi ñu mën mënti jël foofule ci assemblée nationale surtout majorité bi nga xam ne Benno yor na ko ñoom la ñu bëgg muy rupture ak réforme boobu lee du mën a nekk moo tax daal jamono ji moom la mu daal di sàkku rek mooy que ñu dem ci ay élection législative ngir rek ñu ñu mën a am doole waaye itam ngir ñu mën a bàyyi li nga xam ne rek moom mooy le peuple sénégalais moom la daal di euh, bëgg Ousmane Sonko dina def li nga xam ne moom mooy ab déclaration de politique générale foofu noonu ci assemblée euh, nationale avant ñuy wax waxi euh, li nga xam ne rek moom mooy euh, dissoudre boobi lee boobi ba tax na moom gi nag ma ngay xam lekk ne fii ak 30 jours mënuñu fee organiser nañu bàyyi di wax que ni Ousmane Sonko def déclaration politique générale am dina ko def waaye tamit dina jàkkaarloo ñi nga xam ne rek ñoom ñooy majorité yi Benno Bokk Yaakaar li ni mel nag la Guy Marius Sagna daal di xam le moom nag la mu bëgg rek mooy que ñu daal di dem ay élection euh, législative ba tax na fii la ñuy daal di wàccewee suñu ay kàddu euh, di leen jaajafal bu baax a baax di leen jox dig daje ndikk ci kanam tuuti ak yeneen information waaye nag bu leen fàtte chaque fois rek di abonné ngir ngeen mën am information yu waxtale